ngeen oto bi nga xam ni moom la ñu jàkkaarlool mu nekk ay euh, taalibe waaye ñoom seen mission mooy dañuy wër fii ci Tiwaawan ci euh, xadratul malikiya ngir fexe ñi nga xam ni ñooy jaaykat yi ak ñi nekk ci leen jox ay berne euh, président ginnaaw ba ñu la nuyoo ziar la ñu gis nag waaw ñu gis ngeen yor oto di wër jox ñu xéewal voilà salaamaaleykum wa ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di leen nuyu yéen waa presse bi Tivaouane 24 la waaw di leen ziar bu baax a baax di xaar say question quoi. ñu gis nag ngeen yor oto di wër di jox nañu ay berne ñu xam lan mooy sabab bi ak taxawaay bi nga xam ni dañ ko commencé si Tivaouane ñu gis ngeen di joxe ay berne. waaw lii moom euh, dañuy sant yàlla bu baax a baax parce que dañ siy am digal euh, li ñuy def ni euh, sëñ Babacar Sy Mansour moo ñu ko digal Euh, ñun ñooy association des commerçants de centenaire Colobane Petersen chaque année 2019 lañ ko commencé ba léegi chaque année dañuy jël trois jours yoo xamante ne nii euh, dañuy togg ay ndékki añ reer yoo xam ne dañuy def ay benn di wër di joxe. voilà chaque année noonu la ñuy def quoi voilà depuis 2019 ba léegi nii quoi voilà bëgg taalibe yëpp di bëgg rek waaw comme niñ koy defee gis nga comme niñ koy defee nii. Euh, bëgg ganu Seydina Mouhamad yi woote Seydi Hadj Malick bi euh, képp ku fi ñëw bañ a bañ a xiif bañ a mar bañ a rafle waaw sabab sabab bi daal loolu moo ko waral daal voilà mi ngi noonu. jërëjëf voilà jërëjëf. Ah, jërëjëf muy nag euh, commerçant yi nga xam ñoo nekk ca marché bu Colobane ñoom nag centenaire. ci ndigal bi ñu am ci la se xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour mu wax ko nag mu toll ci ñetti fan yoo xam ni dañuy joxe añ reer ndekki di ko jox jaamu yàlla yi di ñaan suñu borom yàlla gën leen sàmm waaye lii moom fierté la ma bëgg aussi sama cadreur yi ngeen jël image yi lii c'est très important que teraanga bu am solo di ñaan yàlla gën leen a sàmm yàlla gën leen taxaw jërë ngeen